àllarba fukki fan nag juróom ñett weeru weerub euh, février atum 2021 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax amati mbégte ak euh, bànneex ñëwaat encore une fois di janowaat ak yéen ci seen matinal bii di euh, petit déj jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni ne safoo suñu ay programme yu Walfadjri TV la vois des sans voix di ñaanal ñëpp jàmm ah, képp koo xamante ni rek jamono ji danga am jafe-jafe wala nga bañ koo am sax daal yal na suñu borom defal jàmm te sax dàkk incha allah. donc comme tous les jeudis rek euh, rubrique yi nga xamante moo fi daan am moo fi fas yéene amaat ñu door ci jàmm jeexal ci jàmm incha allah Aïcha comme euh, tey moom euh, suñ borom daa dogal ni góor ñi ñoo ñu damay def honneur aux dames rek def lu ma neex xam naa ne Cheikh Tidiane Gomis fa mu toog xolam mi ngi tàng mais damay def lu ma neex daal. xayru nuyu naa la defal li la saf yow yaay madame Guèye. Badou maa ngi lay fay nuyoo Fatka. Mhm. di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp. di nuyu àddina wërngal këpp aussi. Mm-hmm. Hmm, te day olof laa toogal. Mm-hmm. waaw mbay Babacar doomu ndeyam <laughs> waaw gis nga mi ngi noonu mi ngi noonu <laughs> ay ca xayri donc xam naa ni moom mhm. téléspectateurs yi na moon nañ la lool loola ah. donc xayri elle est là mhm. tey nga fas yéene indi lan ñoo euh, waxtaanee ko waaw Fatka comme d'habitude rek xanaa delluwaat rek di santat yàlla bu baax di sant tamit ñi nga xam ne vraiment ñooy population ak àddina yëpp rek mhm. ndax dañuy wax ni des fois boo bëggee xam yow yaay kan Euh, da ngay natt sa bopp ci benn affaire mu mel ni petit déj bi mu am na lu fi amoon. vraiment nit ñi fu nekk appel di fa jógee lu nekk nit ñi vraiment ñaan yeeg yooyu noonu mu mel ni kon li ñu def saf na àddina. Mm. kon ñun ñoo def lu delloowaat leen jukkal di leen nuyuwaat bu baax di leen sargalaat di leen wàcc kenn ku ci nekk ci wàccuwaayam di wax ni ñaan yi daal egsi na. Mm. yàlla na yàlla di def jàmm. amiin yàlla yàlla di def jàmm ndax jàmm rek moo fi xaj. Mm-hmm. Euh, di wax rek tey nag waxtaanee ci li nga xam ne mooy violence conjugale. Euh, borom kër yi nga xam ne dañu topp ci seen jabar di wulli rek ni tege ni ni dege mhm. tey ji loolu lañ fas yéene waxtaane waaye nag dama ci am sama benn invité boo xam ne daf ko yàgg assister wax ci wax ci wax ci waxati mhm. na peut-être amu ci solution mu ni day ñëw ci la voix des sans voix pour mhm. wax fi pour nit ñi dégg ko ndax moom ma ngay jógee fële ca Thiès Thiaye benn dëkk ñaari gaal yaakaar naa ne foofu buñ ko waxee bari na ay dëkk yoo xam ne ñoo ko wër faat ka indi li nga xamante ne tey ji mooy gis-gisam ci ci ci mbir moom d'accord loolu loolu am na solo violence mm-hmm. conjugale moom ñu du ñu doyal ci di ko waxtaanee parce que dafa nekk loo xamante nii euh, dafa mel ni sax heure bi ñu koy waxtaanee si lay si lay si lay gën a yokk mu mm-hmm. mm-hmm. ngi noonu donc dinañ ci indi ay euh, peut-être buñ ci mënee am solution dinañ ko si jéem a indi incha allah si kanam tuuti ci biir rubrique euh, mœurs incha allah le plus jeune entrepreneur de la ville de Rufisque notre futur maire Fatou Mbengue walaay euh, madame Guèye maa lay nuyu bu baax a baax di la ziare di am mbégte contentement ci dikkaat ci plateau bu euh, Walfadjri TV. Mm. xam nga di wax euh, fi fi xayri daan la tout à moom mooy xam nañ ne saf nañu réew mi de. Mm-hmm. wallaay wallaay macha allah ah, alhamdulilah rabbil alamin waaw ah, nuyu nañ leen bu baax a baax jox nañ ñëwaat nañ ñu ñëwaat euh, si jàmm ak salaam ah waaw yal nañ yàgg ñëw ci jàmm ak salaam itam voilà mu ngi noonu léegi nag dama lay teel kii rek nga xam ne tey sama yaram dafa neexul nga jàpp si te yàlla rek tax nga bañ ma yëngal dégg nga am na benn tour bu bees boo xamee ne que bokk na ci samay qualificatif maintenant mais bon nañ dem ba ci kanam restez l'élégant alors euh, tey ñu war a wax ci euh, euh, thème bu nga xamee ne que moom mooy alors réseaux sociaux mhm. risque et sinon perversion ou risque mhm.

loolu dañ ciy ñëw ci kanam d' accord loolu am na solo c' est comme man ni ma mel si réseaux sociaux yi. rek ah su ma génnee ñii di jooy ñii di def ay <laughs> affaires. am na mais man maa leen gën a bëgg <laughs> quoi. loolu moo am na <laughs> euh. Euh, lay fay baax soxna Fatou Ka. namoon la lool sax. walaay ndeysaan. yaa ngi ci jàmm. am sama benn mère boo xam ne. Mm-hmm. Euh, daf ma daf ma mës a toog di seetaan télé mais xàmmeewu ma comme daf ma doon gis ci beneen facette mhm. xàmmeewu ma moom muy xool rek ma mu toog rek concentré du seetaan di ma déglu ba jaag mu dégg ma ne wallaay ndeysaan mun a jàppal waajaa <laughs> mun jëkkër ji moom la moom la moom la <laughs> fekk dañ doon hésité daal moom la du moom ndeysaan mais waxtaan ma ci ak ma ne wallaay ndeysaan mu ne moom a jàppal <laughs> maa ngi koy nuyu nuyu bu baax di nuyu ñuy seqal jotaay bi soxna Umu euh, Haj Paté di nuyu bu baax sama invité euh, Seydina Omar euh, le le plus grand communicateur traditionnel de la ville de Guédiawaye Sina Omar Seck di ko dalal jàmm ci Walfadjri di nuyu euh, mbokki téléspectateurs yëpp di ñaan yàlla mi dara teewul yàlla na def jàmm ci réew mi mhm. ak ci àddina bi yëpp ci daraja yontu yàlla Muhammad mi ngi noonu donc Mbaye tey dañuy wéyal rek li nga xamante bi ñu fiy mujjee to loolu nga tàmbali woon muy kal ah? waaw tey ñu fas yéene ko wéyal rek ànd ceeg Sina Omar mhm. muy kal euh, jàmm ak dal gi nga xamante ni mën na ko joo ci réew mi ci suñu wàllu dundin. Mhm. d'accord man man man sekk ndaanaan laa ko laa laa ko bëgg a wax parce que dafa dafa dafa ndaanaane macha allah. Mhm. Seydina Omar Seck nuyu nañu la. soxna Fatou Ka maa ngi lay nuyu di la bu baax madame Guèye. Mhm. di la ndokkeel di am mbégte bu baax a baax tey teew ci kër gu mag gii nga xam ne que suñu kër la. muy télévision bu mag bi di Walfadjri. di nuyu kilifa gi nga xam ne mooy borom kër gi. di Cheikh Tidiane Niass alaaji ñu koy ndokkeel di ko ziar bu baax a baax. Euh, di nuyu tamit euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre en direct. di nuyu tamit mbay Mbaye Babacar Sène. Mm-hmm. Alaaji Paate monsieur le maire de la ville de Rufisque maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. di nuyu soxna Oumou Khayri di ko ndokkeel di kontaan bu baax a baax. Mm-hmm. di wax ne tey daal plateau bi plateau spécial la ndax Kër Madior Kër Thiendella la Kër Thié Yacine ñoo fi daje tey. waaye tey dina garaaw lool. parce que nag euh, balaa loolu maa ngi jaal bu baax waa kër gi ndax dañoo ñàkk koo xam ni. umma islam bi ngi ñoo ko ñàkk muy sëñ Mansour Niass di sët ci Baye Niass mhm. ñu koy jaal ki nga xam ni que moo di Cheikh Niass di ko jaal kër gi yëpp di ko jaal umma islamique bi mhm. di ko jaal tamit sëñ Habib Gaye mu xaddamu sëñ Mansour Sy borom daara ji di ko mhm. jaal sëñ Bassirou Gaye ndax kooku bu jugee ci diine l'islam ñëpp a ko ñàkk di ko jaal xalifa te ki nga xam ne que mooy sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou ak ki nga xam ne moo jiite xalifa Tidiane sëriñ Ababacar Ababacar Mansour ñu ko koy jaal kon nag mbokk daal loolu moo doon nuyoo bi di wax ne tamit ñu ngi di nuyu ñoom alaaji Saliou Bieye kër gi moom suma kër la damay sawar pour ñëw fi fii sama daara la waaye di nuyuwaat bu baax Cheikh Tidiane Niass ku ñëw ci kër gi xam ne ku yokkul da ngaa wàññi waaye ku ñëw fi xam ne yokk na ko ndax am na ñu ne woon attanu ko am na ñu mënu koo yenu mm. waaye bi mu dikkee daf ko yenu daw ak moom mm. gàddu ko teg ko ci ay mbagam yàlla na yàlla defal ko cat mm. yàlla aar ko muy ko baax di kenn ci man barki démb bi may tudd xaalis bu bëri la ma yónnee moom Cheikh Tidiane Niass ci télévision lay waxee wan nga ma ko wan naa la ko yow ay vocal am ngi nii mën naa leen koo tegal <laughs> Cheikh nekk di ku baax yàlla yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko soxnaam mhm. yàlla bàyyi ko ay waajuram ndax moom jàmbaar fàkk tëdd la mhm. lu ko bëtam may fitam du ko xañ avocat mag ba bari bu mag bi ba ci mhm. France koy nuyu kontaan kontaan nañ yow la ca la nga waxal ah, ah. Euh,